Sonko namm nañ la. Mhm. Eh, daanaka stade boo dem eh, eh, moom lañ fay woy mhm. ki semaine bi tas nañ fi match match pour loolu fële ci géejawaay. Mhm. léegi nee nañ sax équipe buy football yi buñ la mënee boo wayee loolu rek ñu tas match bi comme ça. Eh, match bi du yegg mais en tout cas gis nañu ko gis nañu ko mu nekk benn phénomène boo xam ne si nii bu doy waar man nag fi may fi may fi may interpellé mooy est-ce dina yomb tey kon euh, sans Ousmane Sonko nit ci élection présidentielle yi campagne bi ñu man fi def campagne électorale bu normal te euh, maanaam euh, duñ la perturber ak Ousmane Sonko moom Mansour Faye Mansour Faye ñam na Touba moom mi demee yuuxu nañ ko fa tamit Sonko mm. voilà en tout cas daal li ñu naan Sonkorisation bi mi ngi am ci ci ci espace euh, maanaam sportif bi. mais euh, écoute dama koy jàngate déjà sur sur plusieurs angles la première chose mooy gis nga mooy moytul di noono ak euh, ku yàlla saxal ci xol yi. Mhm. loolu mooy première chose. xam nga Ousmane Sonko nga faral ko ñàkk ko bañ a faral nangul ko au moins une chose. Mhm. mooy ne nit ñi dañ ko bëgg. dañ ko bëgg. loolu yàlla moo ko may. munoo ci dara cest à loolu mu neex la mun a naqari la c'est un fait yàlla moo jël Ousmane Sonko tabbal ko ci xolu nit ñi ñu bëggal ko seen bopp. et puis mu créé nag benn phénomène bu bu doy waar boo xamante ne gëw ma ne du ma ne musul am ci wàllum politique mais c'est quand même nouveau que un homme politique puisse susciter autant de de de mouvements de foule et de manière spontanée. Mm-hmm. léegi nag dafa am leneen lu ci am. mooy le calcul nag laa day door dugg calcul bi nga xam ne xaw na laal un peu euh, l'aspect politique mais au-delà de tout cela l'aspect émotif en fait xam nga aujourd'hui li ñu koy teg nii yëpp dafa dem ba dafa tax nii waa ji dañ koo gën a may doole mm-hmm. dafa tax nit ñi dañoo gën a far moom ñu ko bëggul woon sax dañ koy commencer bëgg parce que dañuy jàpp ne euh, dañuy dem ba yee xolu yërmande bi nekk ci mm-hmm. Sénégalais bi vis-à-vis d'une personne bi injustice beeg lenn li quand aujourd'hui la politique vient s'immiscer dans l'espace sportif surtout dans des mouvements nawetaan entre autres nga xamante ne c'est des phénomènes de société mhm. là il faut savoir s'asseoir nag à un moment donné et comprendre une chose déjà c'était une erreur ñu tas match à cause de ay supporters yu yuuxu Sonko mhm. xam nga lu tax mhm. ba nu ko tassee match ba ca topp yuuxu yi dafa gën a neex gën a tar parce que li nga leen tere def ci mbedd bi mooy manifestation yaa ki autorisé yi ñu war a autorisé le fekk que nit ñi war a mën a ubbi seen dënn yi wax li nekk ci ñoom nga encadrer leen dans la plus grande discipline les Sénégalais n'ont plus l'opportunité de le faire mhm. opportunité bi nga amoon moom yow sa réseau social wala sa ay réseaux sociaux sa Facebook sa propre page nga bind ci la naqari wala bind ci sa ressenti ñu ci bëri amatuñu sañ-sañ def ko parce que à cause des réseaux sociaux jàpp nañu ci ay nit donc le fait que aujourd'hui également nga bëgg mën a joxe yow sa gis-gis ak sa point de vue ci benn mbir ñoo am nañu la ko xaw a xàññee tuuti parce que dañu ne finalement même liberté d'opinion ak liberté d'expression jàpp nañu ci ay nit mm-hmm. Mahfouz xam nga loolu lu muy jur frustration yi nit ñi di boole di dajale am na foo xamante ne bu ñu fa dajee ci milieu sportif. nga exprimer mais parce que un c'est un événement sportif suivi deuxièmement dafay traîner une foule boo xamante ne dafa doy waar mm-hmm. troisièmement c'est un exemple boo xam ne dañ ko inspiré sax de l'extérieur parce que de mm-hmm. plus en plus même dans les grands stades bu ñu waree kaas dara ci stade yi la ñu koy kaasee parce que mm-hmm. tu es sûr que le message va être perçu le fait que ñoom ñu dajaloo waroon groupe de personnes ñu mat dix ñu yuuxu Sonko nga bàyyi leen ñu yuuxu Sonko est-ce dina jib mais danoo yuuxu Sonko nga ne yow batch bi tëj nga ko loolu yow loolu ngay bañ wax ko. Mm. waa ñu ñëw na ci beneen ndaje na bu gën a rëy na dëkkee di ko wax nag saa su nekk mu sax ci ay nopp te mënoo ci dara. il faut de l'intelligence. quand on fait quand on fait de la politique mel noonu ah. ma ne. oui qu'on laisse les gens ñu wax li nga xamante ne moom la ñu bëgg moom la ñu gëm. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy gis nga Mahfouz waxoon naa ko ci benn émission dama xamul fii la dama xamul 2 euh, bi ma nekk mais. nee naa leen Ousmane Sonko c'est le leader politique le plus silencieux qui fait le plus de bruit au monde. Ousmane Sonko est tamit. c'est exceptionnel no mais attends <laughs> xam nga silencieux bi mooy lan mooy lan. Ousmane bien avant qu'il ne soit malade toogoon na fi benn période boo xam ne il ne communiquait pas période bi mu feebaree nekkoon euh, suma mhm. génn dellu këram il est resté une période boo xamante ne ni waxul ak kenn. Mhm. mais pourtant tous les jours on parle de Ousmane Sonko les journaux ne parlent que de lui finalement son silence était troublant mmh. silence boo xamante ne yow noppi gi nga noppi mii kaaral googu yoolu loolu yee na ñu bëri ba ñëpp ci yow la ñuy waxtaane boobu silence kenn ëpp ko bruit aujourd'hui silence bii xëy na amaana moo ko teg boppam ci benn côté parce que il a entamé une grève de la faim boo xam ne wér-gu-yaramam sooxee na ci ba finalement il ne contrôle même plus il est malade donc pas en mesure de de se prononcer ou de faire des déclarations. wala mu yóbbante jaaral ko feneen mami fi ma bëgg a ñëw mooy lii ñuy dund tey ci stade yi fan la mën a jëmee ak eh, eh, eh, élection yi ñu jëm présidentielle yi ku ne xam na ni ñi koy def li ñuy bañ mooy ndaje rek ñu jàllale seen message mais est dina yomb tey ñu mën a nit mën fi amal campagne bu normal te duñ la Sonko yi. c'est que yow da neex nag parce que yow bu dee ci matchu nawetaan rek lañ la mayul nga yeggali sa match ci jàmm te yu xooñu Sonko yow nga bëgg xalaat yow di nga def fuul dajaloo mbooloo romb ay koñ romb ay quartier dajale ay nit te duñ Sonko Sonko tant que mu ngi nekk ci kaso bi. Hmm. nekk ci état de santé bi mu nekk nii c'est-à-dire même bu ci génnee sax au-delà ma wax la bi hmm. gën a clair maanaam mu wér ak jàmm te yàlla na ko yàlla defal. Hmm. mu dellu biir këram ñu tëj ko fa barricade waat ko fa du tere bu ñu dajale waati nit ñi ñu ne yuuxu Sonko parce que ñii ñi en fait ñii ñi ñoo ko bëgg te mënoo ci dara. Mhm. te dama la bëgg wax ne même li mu noppi li mu miikaaral dafa gën a yokk baromètre de popularité bi. Mhm. daf cee gën a siiw ñii ñi dañ cee gën dañ koo gën a bëgg dañ ko gën a yërëm et surtout dañu am envie accompagner ko ci période bi mu nekk nii donc Ousmane Sonko finalement c'est le leader politique qui ne parle pas. mais qui fait autant de bruit et loolu mënoo ci dara. bayre boo xamante ne yàlla mook ko jox. yàlla yàlla moo ko may en tout bu ñu xëyee journaux yëpp daanaka moom la ñuy wax plateau euh, yëpp tamit. mbirum Ousmane Sonko la ñuy la ñuy waxtaanee Cheikh Ousmane yow sonkorisation boobu nga xamante ni dafa xew ci stade yi. Eh, ak yenn ndaje yi. léegi yow noo ko noo ko noo jàngate ba yaa ngi ça va waaw ça va ah, ñu ngi tenir ñu ngi <laughs> ah, baax na yaa ngi tenir baax na xam nga dafa mm. buy wax ni les légendes ne meurent mm-hmm. malheureusement wala heureusement ce régime a fini de faire de Ousmane Sonko une légende vivante gis nga président Macky Sall suy meree rek na mere ses conseillers politiques non seulement li ñuy stratégie yi ñuy adopté face à Sonko face à mm. l'opposition day wane ni ils sont archaïques dañoo demoo de temps bi daf leen fi bàyyi et que seen solution yi doxul et que ñu ut yeneen alternative mm-hmm. yow da nga dissoudre Pastef jàpp son leader li tax nga jàpp leader bi li tax nga dissoudre parti bi leader c'est autre chose yaa ngi am dossier yoo mais li tax nga dissoudre parti bi c'est pour l'empêcher de continuer d'exister mmh. parti politique bi lenn ko taxoon jug mooy promouvoir jaay seen client tey la client bi gën a jar boo demee ci statut ñu yuuxoo la sonko sonk mhm. nga tas match bu fa officiel état bi ñëwee ñu yuuxoo leen sonko sonko boo mayee concert en tant que responsable de l' état leader politique ñu yuuxoo la Sonko Sonko